wax ko ko ba mu ñetti yoon mu génn ba ca àll ba fekk guy guy guñ sëgg ba mu set moo ñu ne kii daal gannaaw yàllaa koy fekk fii wodd ko te gënuma boroomu tool bu mu nekk damay dellu ca tool bu ma nekk ba mu delloo mag bi ne Ibra Fall daa demul ñu ne ko dee ah wàññi ko na ba dellu si ca tool yi fekk am na ku fa indi ay sor mu yónnee ko ko ne ko sun la ko jox te xam nga ne nee na woon yàllaa may wodd te wax ko sëñ bi mm. sëñ bi yónnee ko loolu ne ko sa borooma la <laughs> jërëjëf kon ñu ngi ànd ak sëñ Cheikh Fall Mbaor sëñ bi ba léegi ci sama xalaatu bopp ku mel ni sëñ maam si Ibrahima Fall dafa mel ni ñaar yi dafa yombul tu moom te ñaar yi képp kuy sàkku njariñ mu xaw a bëgg ki mooy roy ko ak xam ki ngay nekk te Cheikh Ibrahima dafa mel ni ñaar yooyu dafa jafe xam ci moom loolu ci mën a xamal waaw moom daa wax ne boroomu may boroomu mooy kenn jëru cee roy ndax borom mu may moom nag ko yàlla maye gannaaw facilité yam ko defal fasaali wala ci dana am loolu du neex a roy waaye nag roy ku baaxee tax uh, gën ñu bon ña sëñ sëñ Saaliw xam nga waxoon na ko dane sëñ Tuubaa dane fi seytaane tënk nit ñi mooy ni sëñ bi mel buñ ko meloon duñ ko topp ak kenn mënta jaar fi mu jaar mu ne waaye jaar fa mu jaar nag mooy tax nga weesu ñu demut te dama leen naan aw yoon moom xamut ay at ab dox la xam te ab tànk nag lu mu tuut tuut te doxut te lu mu te dox moo ko rawee tànk ba rëy te doxut hmm. te yow mi dox nag li ngay dox loo bu jër ndax lu mu tuut tuut yaa ko rawee ña toog Cheikh nag ci goog yi wet la nekk lu baax moom dees koy roy moom ci la ñëpp di amee lu baax du ceegi nag nga jot nag ka nga doon ka nga doon roy waaye da nga ko rawee ñu yeefu si ndax eh, gaa yu baax yi daanaka ci eh, fa sabixoo siraata fa ne yëf siroona fa sabixoo siraata faa ne yëf siroona Ah, ah, ah, ak saari woo ilaa maxfirat yooyu yëpp xam nga jëkkante la ci suñu borom santaan néew toog leen def ko ci tey xam nga ñenn ñi danaan mm, tata jafa junub bi mu anel malaaji yaddoon rabbum xafan wa tamaan maara sanamin foon sëñ bi ne taj fil malaaji fii lay junub bi huma naasi na salma walay laa xam nga ñoom ñiñ daan sàcc seeni morom mooy sa morom reer ba reg tudd ci lalam di xaram tudd ak sonaam nga sàcc guddi gi fanaan ci sa borom bu subaa nga rawe ko ñoom yooyu sàcc la ñoon waaye duñu sàcc yi fab yéeri jaamu di dem euh, benn bi mooy xam gi fa man ko liggéeyal ki ngay liggéeyal muy sëriñ bi war ngaa xam lan mooy ak kiyam te junj naa la ko mën a xam cheikh ibra daa xaw a jafe lool waaw xam ngi moom day mel ne lu baax lépp xam koo jafe nag ndax aarifiina billaahi la ñuy wax waaye duñ ne aarifiina laay hmm. kenn du xam yàlla danga nga ci am loo ci xam hmm. te moom daa xam ne sëñ mag bi xam xam yéen ñi jàpp ne xam naa sëñ bi de hmm. li ma ci xam ne mi ngi toll ne sandax ak lam dar ca guy ga Cheikh Ibrahima lu toll noonu la ñu ci des di am ci moom te sëñ bi am na fu mu ko xarfan minal bahri aw rason mina diyami nga xam ne du caagi nag yow daal sañ ngaa xam ne kii ku baax la lu baax la bëgg ngay roy ca baax ga yu bon ya ñuy moytoon nga nga nga mën ko dama leen xàmmee lu baax ak lu bon moom yomb na loo gisul ñi di ko yit sëñ ba mm. doo ko fekk doo fekk mu de te bëggoo mu yëg la ci xam nga ne baaxut mm. loolu nanga mu fekk la ca boo ko ci joxe ko ko xam nga ne baax na mm. lu baax ak lu bon moom sa xel a waxal sa bopp nga xàmmee ko jërëjëf sëñ bi <laughs> eh, danoo dégg ci baat yoo xamante ni xam naa pour leerlu rek moo tax ñu koy laaj eh, dañuy wax ne Cheikh Ibra amul moroom léegi suñ bëggoon a xam ñenn ñu ci bari dañuy waxee noonu waaye duñ xam lan moo tax amul moroom lan moo nga nu mën a xamal ne amul moroom amul moroom gi de mooy ci fànn gi mu jaare ndax day bari ñañ buñ ne du ngeen julli du ngeen war man leen noo bokkoon yaakaar leen jàpp ne mën na ko ngeen jàpp ne mënu ko képp fi eh, sëñ mag bi xam nga biróom dar ba amu fa morom na ñu mu bokk leen di wut yàlla la fa daje leen waaye bi mu leen ci rawee dañ koo bàyyeeg moom fa saabi xoon saabi xoon awlaakal mu xaraboon sàppi su jëkk si ñu jëkk julli see koy jël te suñ borom dama leen gannaaw mooy séddale ngor du ko bëgg mu jaral ko lépp moom dana ko jaral lu bari ci boppam ah yuhibbuunahum ka hubbillaahi wa laa asadahum ban ko Cheikh Ibrahima nag ñàkk gi moroom mooy loolu fa mu teg sëñ bi kenn da ko faa tegut lim nangul sëñ bi kenn nangulu ko ba fii ne ku man ca sa kër ku ne yaay bàyyi falu kër gi nga koy wax. <laughs> Euh, kon xam naa ñu dellusiwaat ci wàllu euh, Cheikh Ibra lan la xam ne bi mu ñëwee ci sëñ bi euh, lan la fi fekkul woon loo xamante ni moom la fa indi te mënul woon a ñàkk ci yoon wi wala nit ñaa ngi koy roy tey. xanaa li yoonu murit rek fekku fi woon yoonu murit daa fekk nit ñi di jàng di di jàpp ko julleeg te loolu a ngi koy def tijaan yi di ko def nangul sëñ Tuubaa di ko sukkal di ko raamal di wóoyee santam boo juree jox ko boo liggéeyee jox ko ñàkk gor moom ci sëñ Tuubaa lañ ko tàmbalee lekki wuyoo sant jàmbur te takk sa ba yóbbu ko te bala ngaa ak fab la nga gën a bëgg jox ko ko nga gën a bëgg kooka gënal la sa bopp te lan tanaalul birra hattaa tunfiqu mimmaa tuhibbuuna la sun borom wax ba noppi def ko ci suuratul Anfaal te Anfaal yi Seex Faal la te Ibrahima la si wafa wa wax moo dëppoo na nga xam ne fréquence yi moom bu bu bu fekkee ne tonalité am na fréquence bu mooy Ibrahima Fall. <laughs> kon sëñ ba léegi wax nga nu cosaanal ndogo ak yooyu eh, danoo gis ci Baye Fall yi li ñu leen gën a xamee mooy sëqal seen bopp ak sol ay njaxas ak loolu ci maam Cheikh Ibrahima lañ ko jëlee wala day ak col rek. sëqal sa bopp de xam naa moom ña nga ca jublu woon bu la sëñ bi yenn loolu tàng te fekk. do wuti pen cheikh ibrahim mom señ bi daw ko sant dara mu wuti wat leneen feneen xam nga bobu sekk yoy mu bokku tok moy yalla yalla neewul bu seen bop yi sekk ngeen dem sawara kuma kuma toñ dem sawara la wax ku moy da am na nak ñi koy sekkal ngir ngir ak talibi hmm. day am ñeneen ñoy ay maytan jackson ak ñeneen dañ koy sekkal ñeneen diko def nañu ndox hmm. ndox ndox mi dal ci lañuy rosé banana bam sax suukar ñi hmm. rosé ci papaye ya ga bam sax ko rosé ci kaani bam sax kaani rosé ci pobar bam sax pobar innamal a'malu binniyati wa innamal kulli imrin maanawaa daal la sun borom te sun borom daa xam ne nii yàlla maa tax maa tax li nu maa tax fii sudur gannaaw moom li nga feeñal waxuma li nga feeñal waaye li nga denc sa xol xam na ko ku ci ne la ngay sabab loo xam na wet gam la cay may ndax fi ne nim yombale jiwu xaaxaam ak jiwu ndoxum mën na ne yombale jiwu gerte bu du waaye day bëgg lu baax moom bala nga ko am sonn <laughs> jërëjëf <laughs> kon xam naa sëñ bi ñu dellusiwaat ci Baye Fall ndax ñu bare bare noo jàpp ne tey bu fekkoon ne gis nañ sax tey koo xam ne dafa bëgg a tuub dëgg ci yoonu lislaam ak yooyu day jàpp ne dugg ci Baye Fall daal moo ko gën a yombal wala dara jàpp ne ndax Baye daa tekk ne daa yomb wala nit ñi lu tax lool. déet Cheikh Ibra dañ ko naan baabul muridina dugg ci mu nekk nag jaare ci buntu ba gën a yomb waatul bu yooti min ab baa bi dala suñu borom wax hmm. neewut mbëkk leen jàll dañu jaare leen bunt yi ci néeg yi hmm. buñ ko tuddee baabul muridina nag hmm. ëpp ci ràkk dàqu cee julli dàqu cee woor biñ noppee ci jumaa ji ñu tudde ko soora bi kon loolu moom it beneen kii la ci te boo jëm si woon Touba moom soora bi ngay jëkk seen moo lay gindi ñi doon jébbali ñu yëpp moo leen sa xol ci jébbalu rek ku def sa xol ci yaakaar nga ne la nga nekkoon bokkut jàpp nga ne njullite gën kuy def njullite yaakaar nga ne murite ji gën kuy def murite yaakaar nga ne boo ko jaaree ci Cheikh Ibra ngay gën a am ne neex sëñ Tuubaa ndax dama bu murit moom mooy jullit pilis Baay Faal di murit pilis <laughs> kon kon daal ñu mbokk yi jërëjëf ngeen dégg ñu ànd ak sëñ Cheikh Fall Mbawar tey nekk fii ci àjjuma ji ci këram eh, ngir eh, ci waxtaan wi nga xam ne moom lañ war a séq ak moom ak lu jëm ci wàllu ndogu yi nga xam ne ak yi nga xam ne mag ñi dañ koo bàyyi woon ak ñoom ba mu des ci ñoom eh, mën na noo xam ne sëñ bi mag ñi liñ fi sosoon ak liñ fi bàyyi woon gën na noo gis ne jàpp nañ ne xañ na mi ngi gën a jëm kanam ci wàllu Euh, taalibe yeeg nit ñi mbooloo meeg yooyu waaye ci liggéeyu mag ña liggéey bi su ma tuddee liggéey bi mooy li fi mag ñi bàyyi woon ci defar ak ci tarbi yeeg tarxi yeeg yooyu eh, jàpp nu Baay Faal gi xañ na comme li ma la doon junj léegi neex gee dugg yooyu mm-hmm. ba tax xañ na ku bëgg te àgg fa yoon wa dëgg-dëgg mën naa nga jàpp ne fii gën a gaaw déedéet ndax fi ne ñene ca mbàkke mbàkke fi ne am na ñooñ boo leen laajoon sarti julli duñ la ko wax boo leen laajoon nu ñuy dabaate waxtu nu ñuy dabaate nu ñuy dabaate ci ràkkee duñ la ko wax boo leen laaje farate njàpp xamuñu ko xamuñu sunna yi te xam nga am na fu bi wax ne ku mel noonu moom bu dee dee su ko jubale penkoog kamaa naa sa yaf aloona nga xam ne daa gis nit ñi sëgg ko sugg mu bokk ca waaye boo ko laajoon sa sart yi xamu ko bunt bu ne am na ku ko duggee koo xam ne xamul dëkk ba la oto bu tey it li ma la wax rek da dama leen daa wax naan sànkar du ci pañab Baay Faal képp la am ci pañe yëpp la am hmm. pañab gura boo dem sànkara nga ca kay yëy mooy seet doom ba mu bëgg day am fu lay doom bu baax mu yëy ko hmm. yére Baay Faal nag sol ko te te doo Baay Faal taxul nga di Baay Faal bàyyi la nga doon nga hmm. ndax tenib soldaar mën nga koo am jënde ko ca marché Caaroy waaye bu weer dee deesu la ca fay doo am numéro matricule te dama leen naan toujours euh, oto moom lu mu siir sar siir sar ñu bàyyi fa place chauffeur bu tada da boor baat lañ ca bind moom bu mu jàpp ne keneen lañ ko ko booleel nuy yoonu Cheikh ibrahim yi la cey dëgg daal jàpp nu ne booleel nañ na ko kenn ku jaar fi euh, jaar léegi <laughs> sëñ bi jërëjëf euh, ku laajoon ne peñe bi moom sànkar mën na cee bañ a am ndax da ngaa jàpp ne rek sànkar moom mënta bañ a am ci peñe gura daal bi fi gura ñëwee la sànkar ñëw de sànkar bi musta beru ñëw fi hmm. la fi àndal hmm. mi ngi mel ne ñu laaj la ne rek nit ma nit ma man ngaa gis doomu aadama ju jariwut ci aadama mm. mën naa am ah, bi aadama ñëwee la fi doomu aadama yi ñëw bi gura ñëwee la sànkar ñëw <laughs> eh, jërëjëf suñ bi xam naa kon léegi ñu waaj sa ngir yëkkat xanaa bëgg a dellu si waat nag ci wàllu taxawaay ci eh, li nga xam ne nag mooy eh, taxawaayu Baye Fall dëgg dëgg dëgg ba nu bëggoon a fotool kan mooy Baye Fall bi nga xam ne mooy Baye Fall dëgg ci ci yan côté nga nu koy fotool foo tamit du weesu nga gëm sëñ Touba muy dëgg ci yow mm. yéene sa bokki murit yëpp jàmm bu yéene jullit yëpp jàmm sëñ Cheikh Ibra ba muy seet sëñ Touba dama leen ne ah, kuy jéggi moom boo sa njaboot doo yóbbaale saako mm. bu la sa bi doo nga taxee jóg da ngay tukki lang fa mm. bari na ñuy seeni bokk di wër wala ñu dee xamuñu seen bàmmeel seen biir ak seen bakk na leen yóbbu woon waaye boo bëggee loo delloo si ci njaboot gi bëgg yaatal ñeneen bokk ca ni ni sëñ bi defan ngay def xam nga yaa ahlal barri jooju mu wax yaa ahlal barri oojul barri bari saqaay hmm. baxaru saqaay bi nag daa am nu sëñ bi man a woote am ñu mën a wootee nee na sëñ bi moom junj la man Cheikh Ibrahima eggale hmm. ndax xam nga sëñ bi mënul ne teg leen ma fii mënul ne bàyyi leen seen bopp jàpp ma hmm. lu ngeen am jox leen ma ko déedéet waaye ka ko yàlla def ci moom nag mu man koo santaane da koy santaane ci ku bëgg a baax jaar ca woowee yoon ndax fi ne yoo xàll yi nga gis yëpp xëy ñu woon diw yoon doolee fa jaar ju yàlla muy yoon képp yoon sëñ Tuubaa ci loolu la jaar ci Cheikh bi ndax fekk na fi te daa mujj ne sun borom dajaleel na ko yëpp ya baax ajaaba nii xayru baaxin fii xattaaba kulli war a xamma lii xaat axtaab ah, xam nga kon ay axtaab ay axtaab la dajal hmm? askuru li askuru waxaadali ab daal la kama kafaanil arba wal jidaal nga xam ne am nay axtaab amee ab daal kon suñ mag bi ordinaire topp ko Eh, suñu jërëjëf <laughs> ñu ngi sant bu baax eh, xam naa léegi suñu dañoo bari loo xam dañ koy gis lool lu wane ne Baye Fall eh, daanaka yi ci ëpp ci tool yi ñu ngi ci taax yi jaxasoo ak nit ñi te loolu dafa mel ni doonul woon cosaan li loolu lan moo ko indi. loola dara indiwu ko ay taax yaatu wutoon rek ndax Touba gi fi ne bi ko suñ Touba yi sañ ci ab àll woon te bu bay limati taax yi boole ko ci. yàllaa doxale noonu jamono ji bu njëkk nit ñi dañ daan war wari fas waratuñ ko oto la ñuy dugg fii ne sunna boo ko bëggee jël dangay ngay yoraat jee si gàddu ku sàcc nga dagg loxoom ku njaalo ñu bu fekkee dencal nañu dóor koy doj ba mu faatu dugal ko ci kàmb ku ko ko ku seyte ku njaalote denchu do ñu door ko yar yoon mm. lolé ba l'islam santane fi ne julli yep nangu nañu def li sant waye bi nguur gi téré li dañ ko fa bay ni ñi ragal yalla danaka da melni ni ragalé ñu nguur mm. kon nak bul japp ne diiné bay faal yep manki mak tarixa yi ci des yep la leen war nekkuñ sànkar ci pañ yep la lek suñ fuñ xamé ne lol jangoro la jo xamanteni gënu nan la ni def bam faju nak ah ni def kenn ko ne jëmala a bop rek yow fexeel ba lañuy bañ bu ko laal rek mm. xam nga sama bopp a ngi méttee gën a wér sunuy bopp a ngi métti boo yëgee sa méttitu bopp ci yow lay faj bopp métti wuti ko te fexe lay moyale lay joxe jàngoro yi bopp buy méttee nga wattu ko rek eh, sëñ ba benn laaj boo xam ne damaa xamul lu ma koy laajee te xaw ma <laughs> dama ko jégalam déet dama gis Baye Fall lii loolu nga wax julleek woor ak yooyu yëpp duñ ko te bisi it yi ñuy gis ñuy julli loolu xamuñu lan mooy sabab seeg yooyu bisi yi di xana nañ koy defé lo nit way sëñ ali mi nu nek la ni daw julli it nan dem ba julli kay bu sëñ laat ñu sëñ fallu julle ba nak muti bu fam mu doon jullee ëmb hmm. kar ñu wër juma ji and ak mom ñu hmm. xëy nak ñu ci dañ koy lo xam nga ku jullit farata sunna warul waaw mo <laughs> tax mu jaxal ñu bare bare xam ne dañuy gis ñu julle ndo ta fi ne fi ne euh, xam nga yéen euh, inna salata kana al kitaban ma mawquutan lañ wax euh, dañ ko sakal julli yëpp wutal ko waxtu te dañuy leb julli da nga gis ko tegale takkusaan ak timis ak gee fayandoo ko ci wenn waxtu tey jàng na ne lee sun borom santaane jubal yoon wi la ñëpp di fut yàlla moom kum kum kum jàpp la ndax fi ne man ba doon oto sa licence ak sa kayit yëpp mën naa mat ñu jàpp la ci ak sa <laughs> suñu waxtaan da cee bari loo xamante ni te taalibe yi li leen tax a jóg mooy jub ak fekk ko jub te da li nga bëgg a wax moom mooy fenn daal foo xam ne amul kii moom kii. li ma la wax a nekk di. <laughs> Ah. fi ne benn dëkk bu amul hôpital amul. Ah. te hôpital foo fekk mu ne fa rek xamal ne boromi jàngoro nga fa. benn hmm. tarixa nag boo xam ne ñëpp jub na gisuma ko ci réew mi. ndax loolu day tekk ne sëñ bi maanaam docteur bi nu mu tëdd eh, bi doon faj si dikk feew daa fekk maanaam ki médecin bi fekk. fi ne docteur yaa ngi faji de waaye docteur di faje taxul ñu ne la docteur du tawat bis bu set nga gis docteur bu ñu opéré wala bu faatu ci jàngoro. <laughs> mbokk yi jërëjëf xam naa kon ñu ngi bëgg a yëkkati jotaay xanaa dikk ci suñu Aliou nag buñ ko toppee yaakaar naa dana dem ba <laughs> dinaa gën taalibe yi karma <laughs> dëgg ngay dégg ndax ci ne li nga gis ci Baye Fall gi da ngaa xoole bëtub Baye Fall waaye mi ngi ci tarixe yëpp hmm. kër gu ne loolu am na fa waxal ndànk gasal suul moom ñu ngi koy def fu ne du ceegi nag dëkk bu ko foo hôpital am rek jàngoro dootu fa dugg xam nga fi ne da ngay gis ñu ci naan dañuy xeex ak jàngoro yi hmm. te docteur boo gis fi ne ci faj la bëgg a retraité Ah, tubarkaal <laughs> eh, kon xam naa sëñ bi ñu dikk ci sëñ Aliou ginnaaw bu ñu xamee ne moom yaa toog jataayam ñuy ñaan yàlla suñu boroom yàggal la fi lool moom loonu mën a indilaatal ci meloom junjoon nga nu ko ci sax lu ci bari daanaka den ciy jaaraat nii rek eh, waxoon nu eh, la kan mooy sëñ Aliou nan la daan taxawee ndog yo gis nañ ne bi sëñ Tuubaa tudd nga ko léegi jumaa ji nga xam ne sëñ Fallou moo ko tuddee daf koo saxaloon di ko ngénte waxtu wu nekk ajjuma ju nekk mu kii ko yooyu yan taxawaay nga nu mën a fàttali ci taxawaay sëñ Aliou sëñ Aliou de xanaa taxawaayam royan Cheikh Ibra bëggan ko yaakaar ko gëm ko gëm sëñ Tuubaa ni ko ni ko Cheikh Ibra gëmee woon donc hmm. di jéem a def nag fa doon jaar li ma la ne kenn mënut a roy sa waajur ba jot ko waaye sañ ngaa jaar ca tànk yam daan jaar hmm. ndax fi ne dañ cee bari ñooñ nangu nañoo doon bu ñuy doon seeni waajur lam fa bàccee alal danañ ko nangoo doon hmm. lam fa bàccee yi benn doon ko waaye lam fa bàccee coono dañuy wut kuñ ko gàll hmm. moom nag defut woon lool daa gàll woon li ko si li Cheikh Ibra bàyyi lépp lam caatan yenn ko hmm. <laughs> jërëjëf suñ bi gisaat nan lu sedd suñ xol loo xamante ni gis nan te loolu it la mooy li war a nekk li suñu laat waxoon ne lu war a ànd lu war a doon ñaar nan ko def ñaar lu war a doon lenn nan ko doon hmm. gis nan eh, bi ngeen di kii yàgg si sëñ abdu ngeen àndandoo kër sëñ Mor Talla di yóbbu ndogu loolu day cosaan wala ginnaaw bi rek ngeen ko defale lenn bi rek di kër gee yaatu ba toll ne fi ne da nga gis kër yoo xam ne hmm. fi ne da ngay da ngay yor kër yaag sa soxna ba yàgg say doom dolli ko ci da ngeen di mujj yokk njël hmm. da ngeen di mujj nag yokk njël du ngeen ci yem dañuy yokk kër ga kër Cheikh Ibrahima yaatu rek dama leen naan ba ñuy gor xel kawam wenn simi ñu Cheikh Ibrahima la woon ak benn kàbbarub sëñ Touba bi léegi nag simi waajur simi ñi jàll bi jàkk jullik sëñ Touba gee te jur julli koo gis ci réew mi fu ñu fi mën di kàbbare rek sëñ Touba tax ndax moom biñ poñee l'islam moo moo ko libéré bu ko libéré wul woon ñëpp doon yéefar xam nga señ amna na fu ko Moussa Ka di wax ne te kon billahi ñepp dem niiraan demam gi wala nasran te kon billahi ñepp dem niiraan alamani rahman fi safina bi khadima xadima madina waa waan akuna saafeen li xaw mi waakuna waan akuna xaadimen fi daw mi hmm? xam nga kon lu ci ne daal koo gis muy dem tool daal am na lu ko tax a jóg ah, ah, bëgg naa wuuteeg yaafus yi te bëgg na bu mën ba nawet wàccee njariñ feeñ ko koo gis àddina nag àddina nag ay tool la àlaaxira lañ ciy liggéeyal ku defe ne nag li ngay bay fii nga koy lekk yaa ngi nax sa bopp sëñ jërëjëf eh, kon xam naa léegi ñu waajal yëkkati jataay bi sëñ bi ñu bari dañuy wax ne eh, ci demin wi yóbbu ndog yeeg yooyu baare yoon weeg tëli beeg yooyu ñu bari jàppoon ne comme lu baax la yeboon ko ci otoog yooyu ndax loolu mën nañ koo dégg mën nañ koo dégg wala oto kat day soog a xew donc Cheikh Ibrahima da ko daan yenn li ma la wax ne sunna yi fi ne sunna yi ñëpp defuñu ko lépp ndax fi ne yonante bi dawal dugg oto jeesi la daan xeexe te koo ci gis ma ngaa ko fetal oto ak di dugg avion màkk ñi aji màkk ñëpp dañuy wari avion ah te te yonante bi da daan da daan war giléem ba mu nekkee la jege màkkat da daan dox xam nga sunna su neen moom boo gisee lu ko gën a farataw da koy tebbi ña seen pëste bi àgg ci yenu da mën a dox dañ koy def ndax borom oto yi fi ne ci lañ leen di fi wutal ñee ay moyen nag ba mooy saw yoon moom duñ ko def waaye sëñ dañ ko def ngir eh, oto yi di ci daw tëli bi kay ku ku ku mën a dox ku ne tax ñu def kuñ kenn kuñ bindal sëb dante amut te buñ dajew nag mbërum laam muy dem may ko mu jàll buñ dajee ki football may ko kuy lëggeel Sëñ Tuubaa nag ku dajeeg moom cib tëli war koo may mu jàll ndax dama leen teraangay transporteur yëpp mi ngi ci kuy siyaari ji sëñ bi ak ku siyaari ji sëñ bi ñibbi hmm. yaa gannaaw sa teraanga ak sa sold ci la nekk kay tarali kooku waroo koo baare <laughs> kon xam naa sëñ bi ñu ngi ci waajal yëkkati jataay bi xam naa laaj bi sax mu bokk ci waaye comme <laughs> sëñ Seex ni wolof yi wax borom xam-xam ba taseeg moom waroo ko bàyyi mu sëñ bi ñu ngi ci toll ci jamono joo xamante nii réew mi lu ci bari dégg nga fan yi li fi xew ci wàllu yëngu-yëngu ba noppi ñu jëmaat ci yeneen i kii te ku yor nga uh, ay ñu topp ci sa ginnaaw ak it am nga sañ-sañ ci wax ci réew mi uh, yi paase lan nga ciy wax ak yi ñëwagul yi paase ñu yàq lu baree bari ak li ñëwagul tam xalaat ne xañ na sax mën naanu xalaat mu jéggi dayo foofu xam nga njort moom inna ba'da zanni ismun la suñu borom wax njort moom baakaar la hmm. li ci ëpp hmm. xam nga lii nga may laaj nag mi ngi mel ne natt asaka mbay mu ñoragut loolu moom bëri mu ci lu ma ca mën a wax waaye li li jàll sëñ bi li jàll moom nga cee wax <laughs> ak li ko fi indi woon li jàll xam nga jëkkiwut jëkkiwut ci euh, pal gii te du ci mujj itam hmm. sun borom moom waxtu wu ne mooy sàkk ku muy fal sàkk ku mu fay jële sàkk nu mu koy fale sàkk nu mu ko fay jële wala xad ahlak naam waa waasiyaakum fa almin mu dakkir moo ko bind day alag nit fii ne xadafi mi ku ko gën a jekk lu ko tàmbalee yàq te ba ko yàlla jekk jekkuloo defar na xol yi ñëpp ñu bëgg ko ba mu leen génnee ci xol yi loxo yi bu maasee di la tàccu waxtu wuñ jekkee ba ngàbbal lay xeer rek seetaata sa bopp <laughs> loolu da moom xanaa moom <laughs> leer na naa <laughs> ñoo loolu sëñ bi noonu koy firile yow kay yow yaa moom say létt mi ci sa bopp la ne yaa koy firi. <laughs> kon sëñ bi ñu ngi lay sant bu baax baa baax di la gërëm <laughs> xanaa jox la kàddu gi nga tàggoo euh, ñu ngi ñaan bu baax a baax yàlla ñu yàgg la fee fekk ci jataay bi te liggéey bi ngay liggéeyal sëñ Touba bëggoon naa laaj benn laaj boo xam naa laaj yu xew la rek euh, bu ñu bëggoon a laaj sëñ si yàlla lan mooy secret am lan mooy kii am man de secret xanaa ni amu ci lu bari mu noonu fàng laa yor ndax man du ma tëju du ma nëbbu nit du ma nelaw bëccëg ca mbedd ma la yendu waa maasaa yi la fa laa danaa ci jëfandikoo li man ku lay laaj doo nga fi ñëw ak ku lay jox ki lay jox bu fi jiitoo ki lay laaj bu ki lay laaj ñëwee ma yeewi ko bu ko bu fi kii laaj jiitoo ma toogloo ko mu nekk yi joxe rek amoon beneen secret te lu ma am lu ne sëñ Touba ma ci gën a ñor sama bopp. <laughs> tubarka <laughs> kon sëñ bi xanaa ñu jox lay ka nga tàggoo ginnaaw bu ñu jégloo bu baax a baax ci laaj yi eh, ak di sant bu baax li nga nu may ci sa bopp eh, ñu ngi lay sant bu baax di la ñaanal fan wu gudd wér xam naa kon ma jox la nga tàggoo rek ñu ngi jéglu bu baax a baax eh, di sant bu baax a baax xam naa it kàddu yi jëm ci taalibe yi ndax yéen a bokk liggéey bi wax del kàddu yi cant yi jëm ci ñoom bu fekkee jar na ko bu ko jarul it waaye ñoom day naka jekk ñu ngi leen di sant ndax lii nuy def noo ko bokk ak ñoom te xam nañ li leen ci war dama leen naan foo fekk gaar ba ña fay dagg bii ñëpp xëjuñ ci bopp saxaar ba mm-hmm. waaye wago yo muy lonko tax ñi dagg bii mm-hmm. wago yaat yàlla boole ne nag bopp bu leen àttan mm-hmm. waaye nag wago wu ci am bopp nag lonkul ca bopp dem waaye bul fekk buñ jeer ber ko nga lonk ca waman taxan laxa bi waasilin wasal waman taxan laxa bi ak seen fasal ku bëgg a dem daal àndal ak kuy dem ku yàq boppam ba noppi nag boo ko joxee sa bopp ne ko defar moom da koy yàq ndax nit mun laa def nu ko gënal boppam kon jërëjëf <laughs> kon xam naa ñu <laughs> jox la <laughs> ñu ngi sant mbokk yi nga xam ne ñoo nu doon déglu ak seetaan di leen gërëm bu baax a baax di ñaan yàlla defal nu ay at ñu teewewaat ko fii ci kër sëñ Cheikh Fall Mbawor fekk ko fi fekk fi njaboot gi tamit ñu ngi sant ñëpp te di leen gërëm bu baax te sant waaw noo ngi sant ñëpp di leen gërëm de ndax taxawaay rafet na yéene ji leen am ak positif bi waaye ñoo ñu ci jàppale ci def gi hmm. te mbiri nit ñëpp nag nañuy xool la ca rafet te bañ a walam yajus su ani sek tatam fi saw bi afidu kaniyan naam lañ wax waye def na jangale katub alquran rek gone bindub kamil nga war ko geur war ko sant ngay fetuk yàq gone defal ngay fetuk yàq ci bir dal mag mu baax du ko def <laughs> tubarkal <laughs> kon sëñ ibrahima jere jërëjëf ñi ngi sant ñëpp bu baax baax di leen geur ben benn bëgg-bëgg wala ben yitté wala benn xemmanteef wala lenn benn jublu pour sëñ tubaab